nekk maa ngi lay nuyu ci turam ak ci santam. Unacois Yeesal tey mën naa ne ci kanamu tonton Saye biñ koy doog a formé ci Mbour ci ñi ñi bokk ci Unacois ci laa mu nga nekk fële. boobu ba léegi ñoo ngi ci mosuñu cee génn. démb bi may wax ak moom mu expliqué ma programme tey bi ni mu waree tëddee man mbuur laa dëkk doomi mbuur laa kon nag lépp loo xamante ne war nañ koo mën a def ñu jëmale suñu dëkk kanam jëmale jigéenu mbuur kanam bu ma ci mënee taxaw ma dinaa ci taxaw looloo tax bi ma ko waxee démb ma ne ko comme te man damay liggéey ci wàllu boobu su ma ciy àndal di ci liggéey yàlla may na ma ci xarañteef boo xamante ne kenn mënu la kaa wax mu ngi doog a ñëw ci dëkk bi bitim réew la jàngee bay doog a ñëw loolu rek mooy métier yàlla boole moom dinaa ko léegi lépp lu mu jàpp mu bàyyi ko mu ñëw suba incha allah ñu jàppale waa Mbour ndax kuy xalam ku ci nekk di ca jaay balaa ngay laaj jaay nga laaj la te su ma sañoon tey financement bi waa Mbour ci seen bopp surtout jigéen ñi waaw. nga xam ne jigéen ñi soxna ñu ku leen jàppale soxna lañu pour ñu wan yoon boo xamante ne dinañ mën a dem ci yoon bi waaw léegi nag dañoo bëgg ñëw liggéey ak yéen lépp loo xamante ne soxla ngeen ko bëgg koo leerlu ci liggéey bi wala bëgg yoon boo leen mën a jaar ñun pare nañu pour jàppale leen waaw ndax ñun ñëpp ñoo bokk nguur lépp lu ñu mën a def nag pour bokk suñuy jotu ci kanam yëgoon nañ ko def man pare naa monsieur Thiam moom mu wax ak yéen. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñu ci nekk si turam ak sant. monsieur monsieur Thiam je suis ingénieur de formation.

mooy leb xaalis leb xaalis dafa nekk loo xam ne dafa jafe-jafe jafe na ci boo am la garanti la jot ca xaalis leb xaalis yomb boo amee bu la garanti mën nga jot ci ay li métti métti fay ay métti métti mooy tax a laaj laaj bu bëgg a leb nga am ku mun a dimbali ba jàppale la encadré la ba ba fay ba yomb cadre boobu lañ bëggoon waxtaan ak yéen mooy cadre étude de projet étude de projet nit ku nekk nekk. xamante ne loo xamante ne mu ngi ci sa bopp. type de projet nag ñaari ñaari bàcc la dafa am des projets individuels am des projets collectifs ñoo xam ne ay regroupement de femmes la wala de d' autres personnes ñoo xam ne ñu bokk benn mbir bëgg ci benn financement boobu étude am à part beneen étude boo xamante ne c'est personnel maanaam individuel boo xam ne benn nit moom moo am projet boppam bëgg ñu financer ko ba ca gën a métti nag mooy bu collectif bi ñoo xam ne ñu bëri ñoo ko bokk parce que foofu tamit dafa am beneen formation boo xam ne dafa war a jur mooy di ngeen xool capital bi nga xamante ne moom ngeen soxla mën a defar vraiment projet bu jaadu ci li nga xamante ne moom ngeen soxla aussi aussi capital boobu aussi ak li ngeen jublu pour defar dafa soxla benn bureau d' administration boo xamante ne aussi moom ngeen war a teg sur place mooy projet collectif dafay mel ni encore comme de la République amaat président am ay ministres yu nekk nekk. donc loolu defe naa. si ñoom la laaj na accompagnement. léegi ci cadre projet individuel. boobu tamit tamit jafe na jafe na. ndax projet individuel nit am na dara ci boppam. am na idée yi. mais est-ce que am na xarañte bi ba nga xamante ne bu ñu ko joxee xaalis bi mën na ci def def lu mu bëgg ba mën a fay te du am problème parce que kuy leb di fay di am problème boo yëgoon doo leb donc formation bi yëpp mooy dimbale nit ki ba mu xam fan la toll maanaam li nga xamante ne mën na ko di fay ba du so ba du sonn donc montant bi nga xamante ne moom la nit di leb leb day dépendre ci li nga xamante ne ci capacité boobu la am di fay dem sonn déjà loolu war nañ koo xam il s'agit pas de dire que damaa bëgg cent mille wala damaa bëgg un million donc montant bi nga xamante ne moom ngay leb dafay méngoo ak li nga xamante ne yaa ngi koy fay te doo sonn nga mënal ko sa bopp loolu aussi day dépendre ci projet bi nga xamante ne moom ngay teg am na ay projet yoo xam ne ñu ngi doon am waaye dafa am at bu nekk wala bërëb bu nekk li fay dox ak li fa dul dox loolu tamit étude la mun ngaa ñëw ne yow da ngaa bëgg a yare ay ay ay xar wax la risque ba ca nekk nga dellu ginnaaw. mën ngaa ñëw ne da ngaa bëgg a jënd ay dusi ñu bàyyi ñu wax la desi ba ca ne nga dellu si ginnaaw donc loolu moo tax encadrement bi am na encadrement bi nag boobaa bu dee individuel dina nekk ñoo xamante ne dañ leen di jël par loo ku ci nekk di nga am waxtu bi nga xamante ne lépp loo xam ne si sa bopp ñu jox comme idée. liggéey si ba nga am satisfaction ba nga xamante ne di nga fay dañoo sonn parce que képp koo xamante ne jël na xaalis ñàkk a nelaw moom mooy indi xaalis bi parce que boo xasee jël xaalis xaalisu jàmbur c'est pour que yow à au moment donné dootoo nelaw mais dafa fekk tamit boo ko defee benn ak ñaari at nga mën a demal sa bopp dootoo soxla dara ci kenn kenn donc loolu tamit formation ndaw ngay am dangay dimbali nit ñi ba ci li mu bëgg a yëngu nga formé ko si tuuti dox ko si tuuti ay xalaat dimbali ko. nit ki aussi war na ràññee mu nekk yor ko sa ñaari poos am na poos boo xamante ne du pour yow yow maanaam investissement poosu investissement la tudd investissement dafa am yoon. nan la ñuy investir dafa am yoon léegi loolu it itam buñ ca tolloo ku nekk dina jël sa temps ci li nga bëgg a yëngu ñu dimbali la wala la li yoon bi ak yoon bi boo ko jëlee yàlla mën na la dimbali ba doo am problème de fay donc ci côté yooyu lañ bëggoon balaa ñuy gis lu bëri wax leen rek rek am ci notion. naa wàññi ñu ngi si ci quoi. gis nga maa ngi leen leer. beneen nag bi nga xamante ne bii moo si ëpp solo mooy képp ku fi toog xam nga ne montage projet am na solo ndax ku ci nekk yaa ngi rêvé am sa kër waaye nit ki mën ngaa yor sa xaalis boo commencé bii di tabax ñu fekk la ca ne lu tax ngay tabax donc montage projet ñoom la financement bi pour nga jëm si du yomb yomb. méthode boobu daf cee am solo daf cee am solo loolu kese laa bëggoon a wax